tey nag ñu daje fii ma ànd ak sama secretaire général u syndicat bi nga xamante ne man moom laa bokkoon depuis plus de 30 ans muy Omar Ba ak sama nattangoo yi nga xamante ne nii ñoom laa àndaloon ci liggéey bi diirab li may nekk ci biir entreprise bi di nekk ci biir syndicat bi. ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi gërëm sama ñaari waajur euh, dama am euh, satisfaction euh, di wax ne tamit alhamdulilahi rabil alamin ndax euh, euh, jagle la bu yàlla def mu wàcc ci sama kaw may ñaan yàlla itamit ñi nga xamante ne ñoom laa àndaloon di liggéey comme ni ma ko waxee euh, yàlla na yàlla def ñu continuer ñoom tamit ba ñëw fekk suñu ci retraite bi tey nag dafa nekk bés bu nga xamante ne nii bés bu ma marqué la ndax yàllaa ngi dogaloon bi may ñëw fii am na ay directeurs yu ma fi fekkoon am na ay nattangoo yu ma fi fekkoon ñu demee ni ki ñoom mbay Yaram Fall ñu demee ni ki Abdoulaye Dieng mi nga xamante ne tey yàlla dafa def mu génn àdduna mais ñu doon profité di ko sargal ci biir loolu kon suñu teewee fii di joxewaale itamit ay lenge pour ñi nga xamante ne ñoo fi des ñu mën a continuer tamit dañ leen di ñaanal yàlla ñoom it dox ci yoon woo xamante ne leer la ñu bañ a am benn fakk-fakk ba yàlla def ñoom tamit ñu dem retraite mais ci kaw loolu daal ngeen ma ma gërëm sant ñii nga xamante ne nii ñoom la àndaloon muy syndicat SATES ñi nekk fi yëpp Maxtaar Gajaga mi ci sama càmmoñ Samba Maxtaar mii ci topp mba Yaram Fall ak Papa Diop ñoom ñëpp ñu tënku ci ginnaaw kii nga xamante ne moom la yàlla def tey seen syndicat bi nekk ci loxoom ginnaaw bi ñu ko euh, remplacer ci ki nga xamante moo fi njëkkoon nekk muy Elimane Diouf muy nit ku nga xamante ne man maa toppoon ci moom waaye mu nekkoon nit ku dal koo xamante ne nii lépp lu ko mës a soxal mooy luy indil koom ak luy jëmale liggéeykat yi ci njub ak ci kanam Omar Ba nag bi mu ñëwee fii Ilimaan tegoon tànkam foofu la teg tànkam ànd ceeg ñun te ñun lépp lu nga xamante ne dañ koy def pour am satisfaction clientèle ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñu tàggat ba tey yàlla def ñu ñuy dem waaye nag comme ni ma ko waxee woon ci sama discours bi sànq en français euh, dafa mel ni ñun demuñu à la dañu nekk en retrait bàyyi leen ñoom ñuy doxal ñu jiital leen topp seen ginnaaw ànd ak ñoom ngir yàlla defal leen itamit jàmm ñuy ñaan yàlla lépp li nga xamante ne ni ñoom bëgg nañ ko pour syndicat bi am ay satisfaction liggéeykat yi am ay koom am liggéey yoo xamante ne ni dañ koy liggéey seen teenu ba euh, teeyu bakkan yàlla defal leen jàmm ak sutura ba li nga xamante ne moom la nekk di xeex muy yokkute yàlla na yàlla defal leen ko. Euh, xam naa ne euh, loolu tamit jagle jagle yàlla la euh, ndax nekk na agent de recouvrement ki nga xamante ne nii lépp luy facture yu ñu fay yu ñu fayul coupure ak yooyu yëpp jiite naa ko fii lu war a mat fukki at ak juróom ginnaaw gi laa ñëwaat defaat fukki at ak ñaar yoo xamante ne nii responsable commercial kon man sama dugg-dugg ci. entreprise bi ba ba ma fi génn section commerciale rek laa mës a laa mës a nekk dama daan saafonte clients yi léeg-léeg nag ngeen gis clients yi nga xamante ne nii yàlla day def ci ñoom ah amuñu euh, seen man-man ak mbala seen am-am am na nu mu demee waaye loolu yëpp li nga xamante ne moom la ñu tàggatoon mooy ñuy waxtaan ak ñoom di saafonte ñoom di leen dimbale di leen accompagner. parce que fii dama jàpp ne képp ku ñëw ci section commerciale rek ñu coupé la amoo li la gënal waaye nag ñun suñu liggéey moo doon ñuy accompagner. clients yi di leen conseiller di àndandoog ñoom ci moment yi nga xam ne day métti ci ñoom di leen tatagal di leen defal pour que bu ñu jógee ci loolu ñu mën a dox ci yoon bu kii loolu nag yàlla defal na ma ci ndam ndax dañoo ñaanoon yàlla benn population bu mu manqué ndox dañoo ñaanoon yàlla benn population duñ ko coupé pour nii ak naa donc moratoire yi ñu doon def ak loolu yëpp ñuy def ñii ñu remplacé tey ci loolu lañ leen tàggal moo tax ma wax ko ci sama discours ne leen ñoo ngi leen di dénk clients yi ngir ni nga xamante ne moom lañ doon doxante ak ñoom moom lañ doon saafonte ak ñoom ngeen continuer ci liggéey boobu ndax loolu la direction général bi laajte loolu la direction clientèle bi laajte loolu la syndicat yi laajte parce que ñoom itamit seen i famille dañoo nekk ci clients yi seen i njaboot dañoo nekk ci clients yi seen i waajur dañoo nekk ci clients yi donc te kenn nit du du xeex boppam. jàpp nga ni dina yomb. Euh, incha allah am naa ci yaakaar. am naa ci yaakaar ndax euh, comme ni ko directeur bi waxee sànq yéen a ngi dem waaye yéen a ngi fii toujours ndax yéen a suñuy conseil lépp lu nga xamante ne nii population yi am nañ ko ci ay jafe-jafe maanaam ci wàllu relationnel entre client ak euh, euh, entreprise bi yaakaar naa ne bu ñu ñëwee fii kii yàlla teg fii tey muy mali Mbaye mu jiite direction territoriale bi ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di liggéey yore poste yi nga xamante ne moom lañu yoroon ak ñi nga xamante ne ñoom lañ àndal seen nattangoo yëpp yaakaar naa ne tàggat nañ leen ci relation clientèle ba nga xamante ne nii yaakaar naa ne incha allahu taala dina yomb ci ñoom. tey oui euh, syndicat bi euh, mun naa wax ne euh, dem naa waaye bàyyiwuma syndicat bi ndax loolu dafa mel ni dafa dafa nekk ci sama deret te comme ni nga ko xamee yaakaar naa ne tey bu fekkente ne nii tey egsi naa fii ginnaaw yàlla syndicat bi am na lu mu ci joué ci man ci wàllu forger ma. ba nit ma mën a taxaw wax ak ñu bëri te loolu formation yi nga xamante ne syndicat bi moo ma ko fayaloon moo ma ko ci yóbbu moo mi ci yóbbu woon loolu bokk na li nga xamante ne tey jii bu mu mënee taxaw ci mbooloo en dehors même de la relation clientèle bi nga xam ne moom laa wax léegi ne moom lañ ma jàngal euh, syndicat bi am na lu bëri lu mu ci joué mais maa ngi seen wet maa ngi seen ginnaaw di leen xool ñoom ci ni nga xamante ne noonu la ñuy doxee te itamit yaakaar naa ne comme ni ko secretaire général bi waxee Oumar Ba xeebu ñu suñuy xalaat xeebu ñu suñuy tegtal xeebu ñu itamit suñuy idée ba xamante ne yaakaar naa ne dina yomb ci ñoom waaye dina yomb itamit ci ñi nga xamante ne ñooñu fi wut. maanaam ci li ma dégg ci ñuy wax ci moom ku exemplaire la woon koo xam ne nii mën nañ ko proposer comme royukaay ci gone yi. mën ko proposer comme roykaay ci koo xam ne fekkante woo woon ak moom ci jamono kon ku mel noonu bu ñu koy sargal di ko ñaanal sunu boroom ci kanamu njabootam ngeen ñëw bokk kook ñoon kon loolu dafay am solo lool ñu ci wéeruwaat di leen remercier waat ci mbégte mi di leen waxaat mbégte mi am ci bokk ak leen yoon ndax euh, sëñ Abdallah warul rek nekk koo xam ne dañ koy proposer comme ni ma ko waxee mu nekk royukaay ci nouvelle génération yi waaye esprit ak xolu engagement wam dafa war a doon loo xam ne dafa war a guider DT bi képp ku fi nekk esprit positif boobu te man li ma ci gën a neex mooy yaatal gi yaatu gi waaw y a aucune exclusion ci ay attitude am ci li ma xam ak li ma dégg ñuy wax aucune exclusion dans son comportement et dans ses attitudes envers tout le monde loolu bokk na ci li ma gën a neex ci loolu bokk na tam li tax ma gën a engagé wu ci ànd ak yéen notamment ASC bi ci ñu mën a célébrer loolu pour que loolu ñu jëmmal ko ba ñëpp xam ko beneen bi ci topp itam te ñu am mbégte lool ci bokk ko ki yéen mooy sargal gi ñuy sargal suñu mag ñi fi nekkoon te yàlla gunge leen ba ñu dem nekk retraite te ñu toog nii ak ñun parce que nag boo xoolee tey ñi toog nii ñu ne ñoom ñoo fi nekkoon ak ñun te tey ñu dem retraite te ñu leen di sargal lu baree baree bari nga ciy gis comme valeur maanaam boo ko dajalee valeur ñuy incarne ñoom boo ko dajalee du lu ñuy jaay c'est totalement inévaluable doole du ko maye alal du ko maye taxawaay la ak jikko yu rafet quand tu regardes ces gens-là tu vois de l'engagement quand tu regardes ces gens-là tu vois de la détermination quand tu regardes ces gens-là tu vois du professionnalisme quand tu regardes ces gens-là tu vois de l'humanisme quand tu regardes ces gens-là tu vois tout notre société, dans ses différentes composantes, incarne et représente comme valeur ci dëggu ci jub ci yaatal maanaam générosité laa bëgg a wax bokk ak nit ñi li nga am tàmbalee ci sa jot tàmbalee ci sa xam-xam tàmbalee ci sa expérience def naa fi juróom benn at musuma gis meru Ablaye Dieng musuma gis Ablaye Dieng fu mu waxee wax bu ñàkk teggin musuma gis Ablaye Dieng fu mu fekkee ab xuloo musuma ko gis def naa fi juróom-benn at mu nekk nit ku dal nit ku teey nit ku baax te am wàccuwaayu lool nag ndax euh, doomu aadama xam ko dafa jafe jëmm ju am wàccuwaay mooy Abdoulaye Dieng euh, bu ma koy tudd day lu dul ay ñaan du ñëw ci sama xel ndax influence bi mu am ci man xanaa di ko ñaanal yàlla suñu boroom xare ko ci àjjana yi gën a kawe di ñaan suñu boroom ñaan yi ñu fi ñaan yal nañ ko suñu boroom eggaleel jox ko ko ak mboolem jullit bu mu fa fekk. man dey moom ak ñeneen ñu nga xam ne danaa leen tudd léegi ci kanam bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ ma forger ba biñ may nommé directeur ñu bëri yaakaaruñ ko woon mais ñoom ñi ma nekkaloon xam nañ li ñu defoon ci man maa ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm yéen waa Thiès di leen wax na awma fu ma seen fay ba léegi nii damay toog ay codir di wax di tudd Thiès. ba bu tudd sama DER lu tudd Thiès te jóge naa fi dem Tëngéej jóge naa fi dem Dakar jóge fa dem dem kawlax mais ba léegi cees dafay resté ci sama làmmiñ loolu nag jaar-jaar yi ngeen am ak man moo ko waral te ku jëmm ju mel ni Abdoulaye Dieng am ci doole lool lool lool lool maa ngi ñaan suñu borom yàlla na ko suñu borom fay xolam fay ko ay jëfam yu rafet te jéggal ko mboolam rëq-rëqam dama wax sànq ne ku dul daanu amul kuñ xamul way walay daane moo am dañ maa yónnee programme bi ma gisaale ci fête de retraités mu am ci ñett ñu nga xam ne ñu ngi nii sama wet ñoom aussi daanaka taxawaay bi Dieng amoon ci man la am ci man ku ci nekk nag ci sa mënin su ma jëlee ku mel ni baay Mamour Seck mi moom laa njëkk a àndal dugg ci àll puut bi lu mu gis lu baax ci àll bi ne ma lii boo ko jëlee boo ko defee sa oto nangam lii boo ko defee nii nangam van bu dul vaanu jinne wan na ma ko ci biir àll pout bi mhm. demoon naa ba RT yi ko nuñ maa xam réseau bi ndax lu nga xamante nii am naa ko jaar-jaar ci jëmm ji mu nekkoon aussi diggante bu rafet ba ni mu jógee puut ñu yokk wóolu wóolu itam indi ko fii euh, ci secteur 2 bokkoon naa ci ñu proposé pour ñu indil ma ko fii ndax xam-xamam ak matam ak taxawaay bu mënoon a am en tant que mag ci biir entreprise su ma jógee ci Mamour ma wax Idrissa Mané Idrissa Mané bi may ñëw fii moom laa fi fekk ak njàllu comme responsable technique euh, lu jëm ci wàllu forage conception bi jàngoon naa ko liggéey bi liggéeyal naa ko waaye gestion maintenance forage ci moom laa ko njëkk a ma ànd ko ñoom bàyyi Ndiaga Fall ak agent de production yi fi nekkoon mu nekkoon ànd bu rafet xam-xam juddu fi ma jànge ci ñoom ñoom ñu jànge ci man maa ngi leen di sant encore une fois di leen gërëm euh, te di leen jéggul ndax bi may nekk fii tamit euh, xëy na fugg bi bëri woon na euh, gone lañ woon ndax booba léegi yaakaar naa fukki at ak ñeent wala juróom kon jamono yooyu daan nañ gis suñu bopp lu bari waaye nag ñu ngi leen koy jéggalu bu baax te di leen jéggal lépp lu nga xamante ni aussi mos ngeen ko seq ak ñun loo xam ne xëy na rafetul woon ci suñu gis di leen ñaanal bu baax may daanalee ci kii di euh, Alaaji Malick Lay moom ñu ànd dafa egg fu nga xam ne dafa mujj ànd ak soxnaam ñëw jébbalu ci man <laughs> ba lu ma ko sori sori sori bu màggal Touba jotee dina góorgóorlu ba dugg Touba. lu ma ko sori sori bu màggal Touba jotee dina fexe ba dugg ne ma maa ngi ci jumaa ji ma ne ko waaw góor dellul baax na kenn munta taxaw ci région bi ci agent ne El Hadj Malick rendul service. Mm-hmm. amul kenn kenn mënu koo taxaw wax ko ne Alaaji Malick rendre le service te olof yi nag dañ ne ku ëmb sa sutura ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura teraanga nga jig nit ñi nun ne parfait nag mais maa ngi lay seedal yàlla ne teraanga dong dong dong nga ma jig te se mun naa seede ci yàlla tamit ne gis naa nit ñu bëri ñoo xam ne jénge lañ damay toog fee di waxtaan ak ay préfet di waxtaan ak ay gouverneur di waxtaan ak ay juge ku ma toogal nga ne ma ana Alaaji Malick tey yàlla suñu borom fay sa xol te guddal saw fan te yokk sa wër sàmm la sàmm sa njaboot maa ngi lay seedeel ci mbooloo mi ne ku ma boole ci sama jëmm nga loolu na ko xam bu baax mbooloo mi lañ fiy feete li nga xam ne lépp ay tàggatoo la tàggatoo bu dëgg bi nag mooy bi ab lay def waaye ñiit dañuy tàggatoo comme ni ma fi tàggatoo woon en 2016 di dem Tëngéej